ngeen suñu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi fii ba tey ah duñ fi jógee ba keroog campagne bi di jeex ah législative yi di fi dalal ay tête de ngir ñu waxtaanee xam nga place bi dafa am symbole bu rëy euh, ci histoire politique gu Sénégal ndaxte mën nañ ko dëppee place du 23 juin te lu bari xewoon ko imam fekkee na yooyu yëpp euh, imam Mbaye Niang mooy sama gan tey jii euh, bokk ci élection législative yi jiite mouvement de la réforme pour le développement social MRDS hmm. imam place bi am na lu bari lu lay fàttali de. woy fii dina ma fàttali lu bare bare bare bari ndax euh, dund naa fi juróomi at yoo xam ni duma ko fàtte mukk li fi gën a ràññeeku moo di ko fàttaliku mooy le 23 juin waaw le 23 juin benn tournant décisif la woon pour la nation sénégalaise euh, peuple bi moo ñëwoon keroog foqar ci souveraineté bi mu joxoon euh, assemblée nationale bi mu ko dénkoon mu nekkoon bus bu doy waar ci man euh, boo dee boo gisee sama situation ci jamono jafe woon damaa bokkoon ci ñi doon organiser mbir mi xam détermination bi peuple bi nekkoon pour liñ fi bëggoon bañ fi am nga xam ni jaraloon na leen lu nekk ma nekk itam ci biir ñi nga xamante ni bii ci ñoom la aju ñu voté loi bi ñu bañ ko voté ma gis ni am na ñu bare bare yoo xamante ni bii ñoom yëguñu ko woon Mhm. xamuñu woon nii ba foofu la peuple mën a àgg man ci problème boobu laa nekkoon moo tax ma ma ma mu jafe woon ci man mhm. waaye daal yàlla moo ñu dimbali mhm. ñu dox a dox dox a dox ba yëf yi sedd am nañu am na ñu bari ñu bari nag ñu xamul ni mu demee am na ñu bari bari ñu xamul ni mu demee mais li may wax rek mooy député yi ci seen bopp keroog ñoo bañ ne duñu voté loi bi ñoom ñoo bañ après ci la arrangement am ci biir majorité bi ba gouvernement bi ñëw retiré ko mais ñoom ñoo ni bu ko gouvernement bi retiré wul dañuy continuer débat yi bu yi àggee ba au vote ñoom ñu vote contre. ah bon loolu la député yi waxoon. ah oui oui. député du PDS. oui loolu la ñu waxoon. Uh-huh. loolu man dinaa ko wax tey man toujours dama leen doon wax pourquoi du ngeen communiquer ci loolu. pourquoi du ngeen wax peuple bi keroog li am. mais est-ce que boobu parce que gisuñu woon peuple bi ci mbedd bi moo taxoon xam na ku ko voté woon tamit lu ne xajoon na ci. xam nga balaa balaa balaa alxamis. Mm-hmm. balaa alxamis boobu. ca talaata ja groupe parlementaire bi euh, commission commission des lois dafa daje. ci assemblée nationale. bi daje dajee euh, waa PDS yi introduire nañ je crois plus de vingt amendements projet de loi boobu vingt amendements li nga xamante ne bii lépp dañ ko ci doon bañ daanaka dindi woon nañ ko le vice président dañ ko doon élire déetu nekk ku ñuy désigné. ba ko élire xam nga ci ci projet de loi bi dañ waxoon ni vice président bi. dañ koy élire mais su fekkente ni euh, am na empêchement dañuy nommer. Ah. loolu ñoom ñu dindi ko ñu ne même bu amee empêchement dañ koy dañuy éliraat ñaareel bi ñu ni mënul mën ñu dugal suñ proposition de loi boobu ñu defoon. Ah. man ak Ndeye Fatou ak ñoom Ichar pour que ku nekk président de la République sa doom du la mën a doonu sa jabar ak yooyu ñoom ñu andi ko wax ni vice président bi mënul nekk doomu président mënul nekk jabaram mënul nekk loolu ñu dugal ko si donc liñ doon ragal ni dafa bëgg dafa bëggoon a. def vice président doom ji bu fi jegee doom ji euh, remplacé ko loolu dindi député yi dindi woon nañ ko dindi woon nañ dindi woon nañ aussi le quart bloquant le 25 pour cent la mhm. dindi woon nañ ko ñu garder l' article 33 bi nga xamante ni bii mooy wax plus de pour cent. Mhm. donc yooyu yëpp dindi woon nañ ko hein avant 23 juin bon loolu nag ñoom dañ ci communiqué pour nit ñi xam ko bi ñu ñëwee nag amendement yooyu am na ci yu bëri yoo xamante intégré nan ko mhm. mais peuple bi itam xamuñu woon loolu ci loolu lañ leen waxee ni. fi mu nekk nii benn solution rek moo am mooy retirer loi bi retirer projet de loi bi bon bien que amendement yi ñu ci def baax na mais peuple bi mënul comprendre loi bi ñu koy voté bon ci loolu nag ak négociation yi am na ci yoo xamante ni peut-être man ko wax fii. Mhm. mais en cas waxtaan wi amoon na solo trop. te itam ay nit ñu am responsabilité ñu ngi fi woon ay nit ñu am sens de mesure ci biir PDS. Mhm. ñu waxtaan waxtaanu jàmbaar waxtaanu dëgër après. Euh, ci la gouvernement bi obligé retirer loi bi. parce que bu ko retiré woon député yi dañuy voté contre. ci xam nga loolu day daaneel gouvernement. comme motion de censure lay doon. donc c' une histoire xam naa dinañ ci dellu si mm-hmm. mais yaa ngi ci biir campagne bi Imam mm-hmm. mais dafa mel ni sénégalais amul engouement. waaw lan moo ko waral pour yow. amul engouement de. waaw xaw ma li ñu jógee ci élection présidentielle ya wala bok euh, solo buñ joxul assemblée nationale. parce que loolu aussi du tey rek ah. est ce loolu la parce que en 2007. man loolu la remarqué woon dama remarqué woon ni nit ñi euh, affaire assemblée yitteelu leen affaire député yitteelu leen. Mm-hmm. bon loolu nag li ko waral aussi mooy comportement député yi. Mm-hmm. assemblée national mm-hmm. parce que député yi aussi euh, bu nekkee assemblée nekkawuñ fa lu dul lu président andi ñu vote ko député yi euh, peuple du leen gis député yi duñ toppatoo mbirum peuple bi mais loolu moo tax assemblée ñu négligé ko. mais assemblée lu am solo la. assemblée mënul ñàkk ci réew muy dund ci démocratie parce que lool aussi sénégalais dañ ko war a xam. Uh-huh. xam nga assemblée mais est-ce que tamit du erreur pour sénégalais yi parce que combat démocratique. Mm-hmm. biñ mëne ba ñuy wax ba def ay alternance lool loolu yëpp lu ñu gën a remarqué moo di defe naa buñ dooloo loolu loolu assemblée nationale am na beaucoup de conflits politiques yu ñu mën a régler. waaw c'est-à-dire xam nga xam nga euh, réew moo xamante ni bii assemblée ba dafa dëgër. Uh-huh. bu assemblée bi dëgëree rek démocratie bi dafay démocratie bi dëgëree la fa nekk ci gouvernement ak président de la république il faut ñu respecter askan wi il faut que ñuy def li askan yu bëgg waaw parce que assemblée moom mooy refléter peuple bi ñi fa nekk dañu war a nuru ni peuple bi mel. waaw te Sénégal yu bëree bëri ñu bàyyi xel ci assemblée mais assemblée mooy doxal lépp ci am réew. mais li ma gis sama sa sa gars yi liñ bëgg ñoom majorité lañ bëgg. seen président bi sax mi ngi wàcc si biir di campagne te li ma jaaxal moo di si homme politique yi yow. Mhm. su ma juumee nga gàgganti ma am na ay principe 2001 yoo xam ne tey jii ñi ànd ak moom ñoo ko xeexoon na Ablaye Wade du ci bokk. Mhm. mais tey jii ñu ngi cautionné mu wàcc dafay jaaxal tamit si sénégalais yi ci loolu. waaw en tout man moom euh, bi ma laajee dama wax ni liñ doon xeex démb ak bërki démb jàpp ni dëgg la ci loolu la nekk ba léegi. bi Abdoulaye Wade bëggee dugg ci maître Abdoulaye Wade bi mu bëggee dugg ci élection yi en 2007. ñu ñëpp dañ taxaw ni amu ci droit ba mujj gi solution bi mu gis mooy mu jël takk ndeeram def ko ci photo bi. ca loolu sax dañ ko contrôle ñu wax ni président de la république dafa war a tëddee njaaxaanaay warul faral benn parti politique. boo ci dolloon ni ci assises nationales yi dañ wax ni président de la république warul jiite parti lool da ko wax ci assises nationales yi. loolu lépp pour daw yu mel nii la. comme ñooñu dañ ko doon wax di ko wax di ko wax man damay continuer tey jii di wax ni président de la république amul droit bokk ci ci campagne électorale yi. Mhm. li ma daan wax bi fi Macky nekkul di ko wax contre Ablaye Wade mais loolu laay wax ba léegi parce que loolu mooy dëgg man dama gëm ni ku nekk président de la république doo am droit di bokk ci ay campagne pour def pour wut ay député. Mhm. waaw mais yow tabb nañ la ministre conseiller ñu foogoon ne tax ci élection yi da ngay ànd ak ñoom ci lu tax nga waaw li tax ma berse ma liste moom euh, li ko waral mooy. Euh, ñun bi ñuy ànd ak euh, Macky ci coalition Macky 2012. Mhm. pour faloon ko mu nekk président de la République la. gannaaw bi bennoo tasee nga xamante ni bii amatuñu woon un candidat de l'unité et du bi ñu doon wut bi ñu jàppoon ni mooy candidat bi am doole. pour daaneel Abdoulaye Wade. bi loolu tasee ñu xool candidat yi dañ gis ni Macky mooy ki nga xamante ni bii il est le mieux placé suñ ko jàppalee mën na daaneel Abdoulaye Wade ñu dem jàppale ko pour mu nekk président suñu contrat agul ba ñu dem ci ay législatives. bi mu nekkee président nag moom moo wax coalition bi nii dafa bëgg ànd ak ñoom dem ci élection législative yi bon ñun ñu d'accordoon ci principe bi ànd ak moom mais bi ñu demee ci confection list yi gis na ni am na difficulté bu méttee métti pour intégrer ñu ñun ci biir liste yi ci anam bi nga xamante ne bi ñun moom lañ bëgg parce que ñun quand même nous sommes un politique. Mhm. dem nañ élection législative mhm. dem nañ élection législative bokk nañ ci élection bon ñu ngi soog a dem ci élection ak coalition ci présidentielle yi. Mhm. bon donc ñun euh, am na am nañ benn personnalité en tan que parti politique. ils ont une histoire. voilà donc bi ñu amee jafe-jafe nag pour dugal ñu ci seen liste yi ci anam bi nga xamante ni ñun moom lan bëgg bon ci lan dem jël suñu ay bagages daal di demal suñu bopp. parce que mhm. ñun dañ jàpp ne mënuñu ñàkk a teew assemblée nationale ci kattanu yàlla. mais li may dégg Macky di wax dafa ne moom bu amul majorité du mën a liggéey. Euh, non jàpp ma loolu jàpp ma loolu parce que man fi mu nekk nii ànduma ak ñoom. mais programme mu Macky man bokk naa ci ñi nga xamante ni bi ñoo ko élaboré bi ñu ñëwee bi am nañ ci contribution bi ñu ñëwee signé ak moom avant premier tour daf ñu ubbil programme bi ñu waxtaan ak experts yi doon liggéey ci programme bi dugal ci une partie ci suñ programme ñun ci wàllu santé ci wàllu éducation mhm. ci wàllu finance ak wàllu yu bëree bëri yoo xamante ni bii ci programme MNDS la jógee ñu intégré ko ci programme yoonu yokkute donc loolu ñun ànd nañ ci dañuy dañuy dañuy assumer loolu ak assises national yi nga xamante ni bi moom jël na engagement d' abord ak ñun ñun bi ñuy bi ñuy bi ñuy signante ak moom bokkoon na ci yin waxante pour bu gagné mu appliquer les conclusions des assises nationales boobu élection amagul booba benn yaakaar juddoogul ñun ñoo ko njëkk a wax ak moom ah. même mandat sept ans bi ñun la njëkk a ñun ñoo njëkk a waxante moom pour mu wàññi ko def ko cinq ans ah. mu d' accord ci principe bi ni il faut nag mu waxtaan ci ak waa coalition bi donc yooyu yëpp waxtaan nañ ci ak moom. absolument waaw donc loolu mooy programme bi. loolu ñun bu ñu demee assemblée nationale bu fekkente ne loolu mooy programme bi mais même bu ñu amee trente députés mais moom mu am soixante mais suñ trente députés concernant la programme de yoonu yokkute ak lépp lu aju ci assise nationale yi mais dañ ci ànd ak moom. Mm-hmm. bu boobaa itam majorité lee doon. kon kon li muy wax ne bu amul majorité peut-être ñi fi nekk mën nañ koo galgal yow d'accord ci. non non mën na bañ a nekk noonu. mën na bañ nekk noonu compte tenu du fait li mu li li muy appliqué nii ñun ñëpp ñoo ci àndoon ñun ñoo ko ñoo ko defandoo. Ah. ñoo ko élaborandoo suñ programme la. Hmm. donc bu ko indee assemblée nationale. mais lépp li nga xamante ni bii dafa nekk ci intérêt askan wi di di di yóbbu Sénégal kanam mais loolu ñu dañ ciy ànd. Hmm. waaw loolu il faut ñu ànd ci. Ah. donc donc ñàkk majorité foofu du tee. mu mën a am euh, moyen bu muy gouverner. Mhm. avec des députés yoo xamante ni bii duñ fi toogal président de la république. Mhm. duñ fi toogal gouvernement mais peuple bi lañ fi toogal. parce que ñun bu ñu amee peuple ñu pour ñu ñëw assemblée peuple boobu lañ fay toogal. duñ fa toogal un président fa toogal un gouvernement. foog nga le système est tellement huilé de telle sorte que assemblée nationale boo leen fi ñëwee yéen mën ngeen toogal peuple bi te du am benn problème foog nga ko. waaw léegi. parce que yow yaa ngi woon ci biir xam ga bu baax système bi. waaw ni ñuy ni exécutif di utiliser yenn la pour notre législatif. waaw xam nga xam nga loolu lépp li ko waral bokk na ci li ngay nekk chef de parti ba pare nekk président de la république. boo nekkee chef de parti nekk président de la république il faut nga am loxo ci député yi. loolu moom loolu moom moom moom moom man loolu laa gis. bon ñi nga xamante ne bi ñoo fi nekkoon daaw balaa ñu daan voté benn loi surtout bu garaaw dañuy dem pare waxtaan ci président de la république dafa am woo leen salle des banques joxe ordre waaw waaw après buñ ñëwee loolu la ñuy topp buñ ci àndee buñ ci àndul yëpp ci loolu la topp bon loolu nag moo war a dakk député buñ ko xësee ba fal amatul couleur politique amatul couleur parti uh-huh. peuple bi moo ko fal moom la war a uh-huh. nekkal foofu uh-huh. bon léegi nag Sénégal jéggi na benn jéego ci wàllu démocratie waaw jéego bu rëy boo nga xamante ni bii daf ñu yëkkati ay jox ñu ay points yu bare bare bare ci wàllu xeex démocratique loolu moo tax ma xam ni assemblée nationale bii di ñëw du mën a nuroo ak bi fi nekkoon parce que léegi peuple bi day sanctionné peuple bi ma ngi taxaw tem yor ay carte am carte électeur di xaar. autrement dit une assemblée plurielle plurielle moo fi nar am. moo fi nar am bu fekkente ne Sénégalais yi bëgg na nañ démocratie bi gën a dëgër ñuy ñuy am un contrôle effectif ci exécutif bi. Mhm. di jël en charge préoccupation sénégalais yi il faut que assemblée nationale bi nekk un assemb une assemblée plurielle. plurielle ñi nga xamante ne bi ñooy gouverner bañ a am la majorité absolue. ba xam ba xam ne lu leen neex rek moo fi am. Mhm. mën nañu am peut te une majorité mais relative ga xam ne am ay questions les questions fondamentales bu ñëwee il faut ñu négocier ak ñu ci des pour mu mën a jàll. Mhm. bu noo bu demee noonu rek suñu démocratie bi dina gën a dëgër. mais bu dee ñoom lu ñu bëgg rek lu ñu bëgg man ci laa bokk lu ñu bëgg rek bu ñëwee mu jaar noonu mu dem loolu du dëgëral démocratie. imam hmm. ci sa investiture lañ ñëw dugal nga oustaz Alioune Sall. Hmm. est ce que gars yi dañuy wax ne c'est te imam bu ñu déggee discours dañuy wax ne mais imam est ce que du bëgg indi affaire yooyu moo tax quoi. non lu tax expliquer ñu rek. waaw cest à loolu ku ko wax peut être da ngaa seetluwul. Mhm. mais ñun MRDS bi ñu juddoo ba léegi ma ngi ci arène politique bi. Mhm. di poser ay actes démocratiques. di bokk ci coalition yi bokk assise national bokk mhm. Benno Siggil Sénégal. bokk Benno alternative 2012. coalition Macky 2012 bokk ci ay élections am un discours. loolu ku koy def mooy tu dans le jeu démocratique en tant que parti politique bon accepter conclusion des assises nationales bi nga xamante ne bii moom moo euh, euh, euh, réformer uh-huh. les institutions du Sénégal am un projet de constitution boo xamante ne bii ñun discuter nañ ko ba d'accord ci projet de constitution bi nar a soumettre réfé peuple bi def ci référendum boobu ñun bokk nañ ci ñu ko discuter ba accepter la ca nekk comprendre bon accepté itam ni nga xamante ni noonu la réew mi war a doxee ci wàllu social ci wàllu économie ci wàllu yëpp donc mënuñu mënuñu ñu berfale ñun comme ñun bëriwuñu ñu ngi ñu ngi nekk ak ñi. mais discours yi ngeen di wax la moo tax gars yi di leen bëgg a berfale. non dafa am yoo xam ni moom. wax dëgg yàlla moom duñ ci ñun ñun dañ ciy beru lépp lu jëm ci éthique mœurs morale yooyu moom nit ñi ñuy fekk si waaye duñ fekk kenn nag. mais bu jëmee ci yeneen question yi man nañ ci ànd ak ñoom <laughs> bu jëmee ci yeneen question yi moom ay ay ay développement lu laal wàllu diine moom doo leen ci sax yooyu moom gars yi ñoo ñuy fekk si waaye ñun duñ fekk kenn am na ay question yoo xam ne moom duñ duñ ko négocier waaw dégg naa nga ne problème sur l'homosexualité nga ne yooyu duñ ci waxtaan sax doo leen sax wax yooyu moom dañuy taxaw fu dëgër nit ñi fekk si mais duñ ci fekk kenn ak yeneen yu mel ni ki noonu nga xamante ne day yàq suñu société daf koy tas mais on est dans une république laïque aussi mais laïcité ne veut pas dire quand ñu yàq suñu ay jikko ñuy def loo xamante ne bi dëppoowul ak suñu diine dëppoowul ak suñu suñu suñu suñu aado yu baax yi fi suñu maam bàyyi woon uh-huh. bon boo demee ci réewu Europe yi France c'est un pays laïque non uh-huh. mais es ce que ñoom dinañ def polygamie est-ce que est-ce que parce que ab benn député non seen diine la peut-être non ba est-ce que benn député ñi mën naa def proposition de loi pour ni France dañ fa restaurer la polygamie est-ce que loolu ñu mën nañ ko mais seen diine la peut-être loolu. waaw mais ñun itam suñu diine la ñu bañ homosexualité. Uh-huh. ñun am nañ droit suñu diine la. am nga droit amu fi benn diine bu nangu loolu. ah waaw du diine l'islam du diine chrétien du diine baax benn nanguwu ko fi moo tax ñu koy rejeté. comme ñoom seen diine nanguwul polygamie aussi ñu rejeté ko nga xam ni boo leen ko waxee ñu taf seen i nopp. Uh-huh. te ñun polygamie nekk lu baax ci ñun suñu diine nangu ko. <laughs> jigéen ñi dañ lay mere de. Uh-huh. parce que polygamie effectivement baax na. bu bu ñu deful polygamie am na ay réew yoo xam ne dañ fa dañ tere woon polygamie ah. léegi jigéen ñaa ngay manifester pour ñu indiwaat polygamie parce que ban ko fa teree 60 ans xaw ma ans am na ay jigéen ñoo xamante ne bii dan gis ni pourcentage bu mag ci jigéen ñi dund nañ ba dee ci amuñu jëkkër dañu dund ba dee ci amuñu jëkkër mosuñu sëy ci ay jullit lañ uh-huh. bon léegi ñiy bañ polygamie rek mooy ñaam jëkkër ba pare aawo bi day bañ <laughs> day am bañ ñaareel waaw mais mais ku nekk aawo ku ni ñëwal nekk ñaareel nga nangu ku ñu ñëwal nekk ñetteel nga nangu ku ñu ñëwal nekk ñeenteel nga nangu te uh-huh. l'islam dafa warmal jigéen uh-huh. l'islam dafa préféré jigéen ji nekk ci bu mu sëy même bu dee ñeenteel que ñu koy ñu koy foowee di ko def yeneen mais yaa ngi woon ci biir assemblée nationale bii mm-hmm. ah, noo koy jugé assemblée bi législature bi laay wax assemblée daal ma ngi dépendre ci ñi fay nekk non bii nga bi ngeen nekkoon biñ nekkoon waaw biñ nekkoon c'était très difficile <laughs> yombul woon wax dëgg yàlla yombul parce que euh, pouvoir bi fi nekkoon dafa amoon une majorité écrasante waaw un rouleau compresseur ñun noonu lañ ko tuddee woon ñun ñu ndaw ñi fi nekkoon. Uh-huh. waaw bu ñu bëggee dara rek ñoom day daal di am ci saasa. Uh-huh. bon donc ñun xeex bu metti la woon ci biir ñu ko doon xeex parce que on était une minorité infime bu bëgg a défendre les valeurs républicaines. bu bëgg a uh-huh. défendre la démocratie bu bëgg a jël en charge le préoccupations des population bon ñi fi nekkoon nag malheureusement. bon du ma wax ni ñëpp noonu lan mel am na ci ay nit ñu baax ay député yu baax mais système bi ni mu demee woon ak président bi force bi mu amoon ak doole ji amoon ci kaw assemblée nationale moo tax ñu bari daaw ñu exprimer wu. bon ça aussi c' un problème parce que parce que le président qui était là était puissant Abdoulaye Wade était très puissant. Ah. <laughs> bon nit koo xamante ni bii da koy sànjaa fu nekk. moo tax ci euh, amoon na loxo ci biir assemblée nationale moo tax loolu il faut éviter ça. vraiment bu ñu bëggee une démocratie il faut respecter la séparation justement c'est là ma laaj ne la yéen rupture ngeen di prôné yéen pour une véritable assemblée nationale de qualité qui joue son rôle mooy ñu def une nette séparation des pouvoirs pouvoir exécutif toog fële pouvoir euh, législatif toog fii pouvoir judiciaire toog fële comme ni ko Montesquieu waxe moom mu étudier affaire bi ba xam ne république di fonctionner noonu moo ko waxee bu demee noonu problème du am assemblée nationale nekk une structure autonome indépendante député yi fa nekk ñu sentir ci seen xol. Uh-huh. ak ki seen xel ni peuple bi lañ fi toogal mais toogaluñ fi président. Uh-huh. lépp lu ñëw lu jóge ci exécutif bi ñu examiner ko objectivement même buñ bokkee ak président bi quand ñu examiner ko objectivement su fekkente ni ça va dans l' intérêt des populations ça va dans l' de la nation ñu ànd ci. Uh-huh. bu fekkente ni gis nañ ni ànduñu ci comme ñu bi ñoo nekk. au lieu ñu fi nekk di voter contre di leen daaneel bu booba dañ leen koy delloo waxtaan ci ak ñoom ba mu gën a dëppoo ak ni nga xamante ne bi noonu la askan wi bëgg ñu soog ko doxal. Uh-huh. mais bu demeewul noonu rek moo am une hégémonie de l' sur le législatif kooku bu boobaa affaire bi c' est sûr que du dox. Uh-huh. waaw pouvoir législatif moom dafa war a am indépendance par rapport au pouvoir exécutif pour ñu mën a wax démocratie. Uh-huh. beneen bi mooy député yi il faut ñu jox leen ay moyens. mais non foofu sénégalais yi duñ d'accord dañoo wax ne mais député yi xaalis bu bari bi ñu leen di jox te gis ñu impact seen njariñ boo laajtee yeneen moyen sénégalais est-ce que dañ la votel imam loolu boo ko wax xam nga xam nga nekk xam xam nga fi mu nekk je suis bien placé pour le dire parce que man nekkoon naa député mhm, absolument maa ngi wutee nekkaat député bon xam naa xam naa yëf yi ni muy demee gis nga cent cinquante députés yi ñu nekk y a onze commissions techniques yoo xamante ni bii ñoo ñoo ñoo am compétence pour contrôler action gouvernement bi c'est-à-dire am na commission boo xam ne moo yor éducation jeunesse loisir euh, euh, moo ko yor. Mhm. am commission boo xamante ni moo yor culture am commission boo xam ne moo yor défense commission yëpp boo leen boolee onze commission la ñoom ñoo war a liggéey am permanence pour di saytu département yi relevé ci seen compétence lan la ñuy liggéeyal aska wi. est-ce daanan ko def. foofu laa jëm commission yooyu bi ñu examiner xool pour ñu def liggéey bi normalement il faut ñu nekk trente au pour ñu nekk trente au minimum il faut que député bu ci nekk inscrire ci trois commissions moi j'étais membre dans trois commissions commission défense commission transport ak commission éducation. nee woon nee woon nga ci de wéetoon nga ci trop peut-être. non ñëpp ñëpp. Mhm. ñëpp kenn ku ci nekk da nga nekk ci commission yooyu bon donc loolu gis nga déjà inefficacité par rapport ak euh, ak kii bi ça c'est un deuxièmement député yi amuñu ay assistants il y a pas d'assistant parlementaire. te loolu démocratie boo dem un député dafa war a un assistant parlementaire boo xamante ni moo koy jàppale ci liggéey bi muy def. Mm. amut bon député yi bi ñu amee ren la ñuy soog am bureau ren la ñuy soog a am bureau mais député yi bu njëkk amuñu woon bureau. je ne parle pas de salaire ah waxuma salaire mais man ci moyen yi yi nga xamante ni moom la ñu mettre à la disposition de député pour mu mën a liggéey bon donc y' a y' a y' a de choses yoo xamante ni bii il faut ñu ko au niveau du parlement au niveau de de l' assemblée nationale. pour que député bi mën a nekk à l'aise pour liggéey. Mhm. voilà ci yooyu peut-être euh, législature bi ñu ñëw ñi nga xam ne am nañ expérience ci vie parlementaire c'est sûr que dinañ am lu ñu apporter pour que député bi di mën a kii. le salaire moom c'est sûr que on peut maintenir ça. Mhm. mais ci conditions yi nga xamante ne mooy permettre pour député bi def liggéeyam bu correct. Mhm. loolu il faut ñu fexe ba mu am. mais si texte yi. yow yaa ngi ci biir. pratique nga texte yi. gis nga problème yi muy jànkoonte. tey jii Imam Mbaye Niang majorité au niveau de l' assemblée nationale lañ lañ war a def si change teg si pour au moins sénégalais yi. Hmm. xam nga li ñuy wax ne euh, Mamadou Diop. ba mu nekkee maire de Dakar ba mu am way ba gars yi way ko la ko ci la doog a xam ne maire lii mooy njëriñam. voilà voilà. léegi il faut ñu changer le règlement intérieur de l' nationale. loolu ñu ngi ci woon ñun de législature bi passé Mhm. ñu ngi doon waxtaan pour changer amender le règlement intérieur de l'Assemblée nationale mhm. parce que ci règlement intérieur bi dafa ci am yoo xamante aussi dafay bloquer le fonctionnement de l'Assemblée boo demee fii li fi nekk ci ay question orale ak ay question euh, écrite ak mhm. question d'actualité ëpp na cinq cent yoo xamante bi kenn traité wu ko man mi ci sama bopp rek li ma def ci ay question oral ak question yooyu jigéen na dix lan moo li ko indi mooy ça ça ça ça ne fonctionne pas ça aussi est un problème ça ne fonctionne pas te euh, loolu benn la beneen bi mooy rapport bi waroon am diggante gouvernement bi ak ak ak assemblée nationale nga xam ni ministre boo ko woowee dafa war a tiit di ñëw loolu amut ministre ñun dañuy woo ministre du ñëw dañuy woo ministre du ñëw du woo nañ fii le ministre euh, euh, Karim Wade di il n'est pas venu. loolu moo indi woon sax ñu ñu créer problème l' actuel président de la République. y' a plus de questions yoo xamante ni dañ ko waroon traité à l' assemblée nationale traité wuñ ko yaa xawma combien de proposition de loi yoo xam ne député yi ñoo ko def man def naa proposition de loi man kese bokk naa ay proposition de loi ak sama yoon nañ collègue député non inscrits yi lu mat 4 ba 5 kenn traité wu ko. Mhm. kenn traité wu ko loolu loolu li ko li li muy li ko waral rek mooy exécution législative ni ñu def balaa ñuy traité fi benn question. faut que exécutif d' accord ci yooyu il faut que fi nekkoon comme président d' accord ci ça c' est un handicap boo xamante ni bii il faut ñu régler ko. Mhm. un ministre bu ko assemblée nationale woowee ci règlement intérieur bi li muy wax mooy assemblée nationale am na droit indi la premier ministre am nga droit woo ministre gouvernement bi yëpp am nga droit am nga droit woo leen ñoom ñëpp ñu toog nga interpeller leen sur une question. Mhm. mais yooy yëpp ñu ñun def nañ ko en tant que non inscrit opposant jéem nañ ko ba sonn mënuñu fexe ba am ko li ko indi nag. mooy bureau assemblée nationale bi yëpp. Uh-huh. ak exécutif bi yëpp mais benn lan c'est la même chose c'est la même chose. Okay. donc buñ fi indee loo xamante arrangé wul gouvernement bi mais duñ ko doxal beneen bi mooy amul équilibre entre l'exécutif ak le législatif. Mmh. par rapport aux lois. Uh-huh. man en tant que député li may def ma ngi tudd proposition de loi su ma bëggee indi loi. ça s'appelle une proposition de loi bu fekkente dafa jóge ci exécutif bi. man ngi tudd projet de loi projet de loi bi bu ñëwee dañ koy enregistrer man na ko enregistrer examiner ko en urgence. Mhm. mais dans tous les cas dañ koy enregistrer mu jaar procédure mu war a jaar ñu yóbbu ko plénière mais man en tant que député su ma defee proposition de loi il faut ñu envoyer ko président la république. mu xool na ci jël ci avem jël ci avem laa wax bu fekkente ne arrangé wu ko comme comme proposition de loi yi ñu def mais daf koy bloqué et c'est le cas en ce bon loolu moo tax buñ bëggee assemblée bu bu bu bu démocratique mhm. buy taxawu askan wi ñi ñuy fal ñu nekk ay député di ñëw foofu il faut mu nekk des personnes indépendante autonomes ñu am loolu ci seen esprit am loolu ci seen xol ban fa ñëw ci ci posture par parloo waaw mais ñëw fa ci posture ñun dañu ñëw pour taxawu askan ah, ni ma déggee waa sa sa gars yi di wax ñoom ñoom buñ fa ñëwee Macky la ñuy liggéeyal de non li ma dégg noonu ñuy wax kenn waru fo ñëw di liggéeyal Macky ko fa ñëw ñi Macky di ki Macky ñi Macky di liggéeyal ñooñu ngay liggéeyal Macky il travaille pour le peuple mhm. il a été élu au suffrage universel le député aussi est élu au suffrage universel comme, mhm. comme lui mhm. même légitimité mais mais imam yow peut-être que néew nga ci ñu doon ñëw mais fii doo fi gis kenn assemblée bi lu tax loolu lan moo ko waral ak yow boo fal boo boo amee majorité noonu ngay réglé loolu waaw am na am na ay pro euh, mujj gi euh, am na sax ci règlement intérieur bi. Uh-huh. ay proposition yu ñu defee de sanctions pécuniaires nga xamante ni boo ñëwul ñu wàññi ko ci sa ci sa. salaire d'accord nga ñu appliqué ko. waaw je suis entièrement d'accord c'est sûr que man su ma fi ñëwaatee. Uh-huh. yooyu dina bokk ci may proposer à l'Assemblée nationale pour ñu jël ay sanctions yoo xamante ni bii ñi ñëwul. mais lenn aussi war nañ ko xam gis nga député bi dina nekk ci biir biir hémicycle bi du ñëw plénière nekk di liggéey ci benn benn projet de loi boo xamante ni bii. moom lañ war a examiner dans trois jours quatre jours bu nekk ci bureau bureau di liggéey ci loolu bàyyi plénière bi loolu si day am député bi mën na nekk. mais non mais des fois nga gis plénière boo xam ne baax quand même sur cent cinquante députés nga treize présents. wala non c'est pas normal. c'est normal loolu xam nga loolu da nga koy gis rek tu es choqué. loolu loolu uh-huh. loolu moom lu ñu war a saafara la. bon loolu nag li ko indi bokk na ci lu bëree bëri niveau député bi son niveau <laughs> bon. parce que am na loo xamante ni bi intellectuel du def uh-huh. am na loo xamante ni bii ku am sensibilité liggéeyal sa askan doo ko def uh-huh. bon mais boo fi indee koo xamante ni bii moom dafa jàpp ni ñëw bi mu fi ñëw euh, benn waay rek moo ko fi indi et que tant que ma ngi koy ma ngi koy ma ngi koy sant di ko gërëm di ko tàccu uh-huh. moom ma ngi fi continuer di toog boo defee loolu itam yaa indi député buy def bu mel noonu seen rapport exécutif législatif lan la war a doon pour l'intérêt de notre démocratie wow. parce que xam nga le rôle du législatif c'est de contrôler exécutif bi hmm. tey jii loolu nan lañ ko mën a renforcer surtout sur les questions de bonne gouvernance parce que lépp lu fii coow am na ñu ne assemblée mënoon na ko régler ci ay commission leeral askan bi mais gisuñu ko waaw loolu liñ ci mën a jaar rek mooy député bi am na ay outils yu mën a exécuter loolu mooy ñu renforcer outils yooyu man su ma dee député ma poser une question orale au gouvernement le gouvernement doit venir répondre su ma poser une question d'actualité le gouvernement doit répondre ñu alléger les, les les procédures de dépôt de motion de censure ça aussi c'est important parce que jamono ji ñu toll parce que motion de censure du bu ñëwee rek waa ji day daanu parce que loolu lañ jàpp. mën na nekk alerte. non mën na nekk euh, une occasion pour que député yi échanger ak gouvernement bi. sur ces questions-là par exemple ñun ñu ngi bëggoon déposer une motion de censure bi mu amee le dépassement budgétaire ñu ko woon parce que il fallait avoir dix signataires mënuñu woon am loolu mais suñ ko amoon dix suñu amoon dix signatures loolu lim ñuy permettre ñu def ko mooy gouvernement bi day ñëw assemblée nationale. Mhm. ñu expliquer wu ci dépassement budgétaire yi amoon. su fekkente ni na ñu mais amul problème suñu ñu convaincre nag ci la ñuy soog a voté motion de censure bi nga xamante mooy daaneel gouvernement bi. bon donc yooyu il faut alléger ça il faut aussi alléger euh, euh, affaire procédure yi ñuy teg ci proposition de loi mmh. parce que député bi su bëggee de proposition de loi bu fekkente ni proposition bi dafay entraîner décharge financière dañuy wax député bi mu mu proposer fi muy jëlee xaalis bi xam nga loolu aussi c'est pas possible mmh. boo boo fi indee benn proposition de loi mmh, boo xamante ne buñ koy appliquer dafay laaj. ACA euh, incidence financière dafa am incidence financière député bi yow yaay wuti moyens yi nga xamante ne bi moom ngay proposé ni buñ ca jaaree ci la ñuy am yooyu yëpp il faut ñu dindi ko pour que député bi di gën a nekk à pour mën a liggéey mhm. beneen bi tam mooy mais exécutif bi mu yem place am ñu def un président de l'Assemblée nationale très fort ku am personnalité ku am indépendance ku am par exemple bon je ne fais pas la propagande pour lui <laughs> ku mel ni man par exemple. ku mel ni yow <laughs> non je. en tout cas parce que comme ça soulève un débat. en man président bi naw la laa koy def li wóor mooy du ma def loo mukk mukk mukk loo nga xamante ni bii su ma ko defee du nekk njariñal askan wi loolu moom du fi du ma sax am mhm. waaw man su ma nekkoon président de l'Assemblée dina dinaa assurer bu baax la séparation des pouvoirs waaw législative dina séparer wu dina am am dina am autonomie am te li fiy def itam day am transparence parce que mënuloo nekk ni yaay assemblée nationale da ngay contrôler gouvernement bi ba pare yow kenn du la contrôler xam nga assemblée ni muy doxee ci wàllu xaalis ak ci wàllu yooyu. Hmm. amul contrôle de. cour des comptes du fi dugg euh, nu mu tudd code des marchés du fi dugg yooyu yëpp c'est pas normal man su ma nekkoon président damay ubbi yëpp leer ay fonds politiques yi ak yëpp. mais kon yéen mënoo leen woote transparence ba pare te yéen seen fi dara transparent wu fi. loolu moom amu fi amu fi. questeur kenn du ko euh, audité. marché amu fi code des yooyu amu fi. kenn du contrôler dara. assemblée nationale bi ma ngi fii noonu boo duggee loolu yëpp day dañ. man su ma duggee loolu yëpp day dañ am doole day dañ su ma amoon doole bi loolu day dañ. transparence totale mooy am parce que bala ngay bala ngay wax nit ki sangul dangay ngay sangu ba pare. Mhm. waaw bala ngay nit ki sangul da sangu ba pare. transparence boobu dafa war a am assemblée nationale xaalis bi ñu xam fi muy jaar ñu xam fu muy dugg su ko defee boobaa nag ñun dina gën a dëgër pour contrôler l'exécutif. Mhm. c'est ça qui est normal. waaw mais euh, yaa ngi nekk ministre conseiller su ma ne la jugeel ma action Macky Sall loo may wax. waaw en tout cas bi ñu tàmbalee ba léegi nii. Hmm. les actions sont positives hein. bi ñu commencé ba léegi nii. mais sénégalais ñi ngi am benn tiitaange ne est-ce que du ñu dund luñ dundaatoon. c'est-à-dire. parce que am na yu bari yoo xam ne yéen a ngi ciy wax waxeet ah. loolu lan la. campagne bi yéen a ngi ciy dugg xam nga sénégalais bu ñuy xeex question politique c'est des principes. man loolu d'accord mu ci. d' accord ma ci Macky di dugg nomination copinage yi bari na fi. yooyu yàlla nomination moom yi mu nommé ay nit yu bari yoo xam ne gars yi ni nga ko wax. non mën nañu wax copinage parce que quand même il faut reconnaître que euh, dañu xeex ci ab coalition ay nit nekkoon ci di xeex pour ñëw au pouvoir pour gérer. Mhm. c' e ça leur objectif hein ñi nekk ci parti politique yëpp. Mhm. dañu nekk ci parti politique yi am seen i xalaat am seen i bëgg-bëgg. yoo xamante ni jàpp na ne buñ ko doxalee askan wi suqaliku. pas forcément pour ses alliés mais par rapport à ses choix même à l'intérieur de l'APR et des autres. waaw loolu nag man contrôlé wu ma ko. mais sur les compétences parce que xam nga bu nekkee ne da nga euh, xalab beneen régime bu fi nekkoon parce que compétence. Mhm. booy ñëw di nome tamit war nga xool. loolu je suis entièrement d'accord avec toi. voilà ki ñuy nome moom dafa war a nekk la l'homme qu'il la place qu'il faut à c' est pas parce que dafa ànd ak yow trois ans. yu ko sol t-shirt Macky Sall ba sonn rek ça je suis pas d' ki ñuy nommé moom. waaw bu fekkente ni itam dañ koy tànn ci ñi xeex. loolu mën na nekk critère. waaw mais critère bi gën a essentiel. mooy nekk un homme compétent. boo xamante ni bi bu ñu ko joxee post bi dina ko mën a tenir dans l' intérêt de la nation mais waruñu ko jox rek parce que man ak moom dañ par parloo loolu il faut dépasser ça loolu maa gis si entièrement d' accord avec euh, bu fekkente loolu am na. je suis entièrement d'accord avec euh, les gens qui disent que. loolu warul am loolu warul am. waaw loolu warul am. Euh, mais seen conseil interministériel ministre conseil des ministres yi ngay délocal gars ñoon dañuy campagne d'accord nga ci. waaw c'est-à-dire euh, euh, bi ñu koy décider. c'était avant la campagne. Mhm. bon moom waxoon na période bii ñu nekk nii mënoon nañ xaar ba après. waaw loolu loolu peut-être ce serait bien hein. parce que dama jàpp ne su ma juumee nga gàggante ma que y a rien d'extraordinaire. que d'aller passer une nuit dans une localité dans cette période bu ne mënoon nañ ko def dans une autre période gars yi wax y a e d'extraordinaire et ñaata lay coûter le contribuable sénégalais. waaw ci wàllu coût bi moom. man am naa yaakaar ni amul amul amul trop d'importance. ci wàllu coût bi ci déplacement ministres yi dem foofu. par rapport ak njëriñ du ministre de cabinet ñëppay dem. waaw ndar moom ñëpp demoon. waaw en tout cas man dem parce que parce que ministre conseiller. Uh-huh. c'est sur invita convocation invitation ci lay demee. ci normalement ci conseil des ministres. Uh-huh. man bi ma nommee ba léegi mosuma participer ci conseil des ministres parce que kenn invité gu uh-huh. donc euh, par rapport au coût je crois que njariñ li man d'accord naa ci yéen ñuy déplacer les conseils euh, de euh, les conseils des ministres ak les conseils interministériels muy wër ci région yi je suis entièrement d'accord c'est positif parce que dina dundal région bi. dina dina ah, dina dina tax aussi dina tax oui oui mais dina tax aussi population yi sentir ni ñoom ci république bi leen bokk jige président bi jige ministre yi bon man may xalaat rek buñ ko yóbboo Casamance effet bi mu fa nar a am bon buñ ko yóbboo Casamance maa ngi doon wax sax ci benn émission tey nii man doon naa suggéré ñu def fa trois jours nga xamante ni day dem ci département yëpp département bu ci nekk mhm. dañ fay dem def fa réunion waxtaan ak waa département bi soo ko dem loolu dina gën a rapproché ah les gouvernants mhm. ak ak population yi mhm. man je pense que taxul trop mu am importance par rapport ak li ciy recherché bon mais comme euh, nekkuñu ci arène bi ñun rek di def ay compétition euh, électorale uh-huh. bu ñeneen ñi contesté ni dafa nuru une campagne déguisée moi je pense que il serait bien ñu suspendre ko ba campagne bi jeex ñu soog a commencé waat uh-huh. waaw loolu lépp dafay renforcer suñu démocratie dafay gën a tax aussi ñun nit ñu nekk à l'aise devant ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy les les opposants ah am ngeen opposant yu leen sonal temps yi. Hmm. le fait que ngeen jàpp ay oto. Hmm. quand je dis yéen damay wax ne pour tout le régime. Hmm. le régime jàpp ay oto. cow li bare ci Abdoulaye Wade ngeen libéré ñetti oto est-ce que loolu c'est pas un aveu que lépp li ñu def c'est dans la précipitation. déedéet xam nga xam nga jàpp jàpp moom ngay njëkk a def. mais léegi PDS mën a wëlbatiku porter leen plainte pour préjudice subi. déedéet waaw xam nga xam nga xam nga xam nga bu amee amee un problème. ma ngi mel ni rek ci wàllu justice toujours dafay am présomption d'innocence ki ñuy jàpp moom toujours jusqu'à preuve du contraire dañuy jàpp ni li ñu tax ñu jàpp ko defu ko ba kere ñuy am ay preuve yu leer naa ñun ñu moo ko def léegi nag buñ ko jàppee avec cette présomption d'innocence ñu vérifier ni moom il est innocent mais dañ koy bàyyi mu dem mais est-ce que loolu tamit amul précipitation no amul précipitation parce que fi mu nekk nii xam nga xam nga audit yi ñuy def dafa occuper benn place mm-hmm. ci ci quatre ans cinq ans yi nga xamante ni bii mooy les cinq ans de gouvernance il faut ñu il faut ñu def ko ci ci ci période bi ñu ko circonscrire pour mën a toxu dem ci leneen parce que mënuñu fi dëkk toujours di def ay audit def ay audit def ay audit bon donc ñu def ko ci période bu ñu jógee ci période am nag soo ko dem dem ci leneen. Mhm. loolu moo tax ñu xalaatoon ñun bi ñuy wax affaire transition bi ñuy wax affaire transition loolu moo tax ñu xalaatool ko. Mhm. ñun xamoon nan ni bu fi Ablaye Wade jógee ak régime am bu ñu ñëwee installé wu am na yu bëree bëri yu ñu war a def yoo xam ni ci période transitoire kese lañ ko mën a def waaw. mais gars yi ñu ne audit bi harcèlement la de. non du harcèlement. règlement de compte politique du règlement de compte. ñu. du règlement de parce que euh, ñun euh, avant ñuy agsi ci pouvoir bi hmm. mais amoon na ay problèmes yu bëree bëri yu fi xewoon fii Sénégal ci wàllu gestion ci wàllu gouvernance y a les dépassements yi nga xamante ni ñu ngi fi doon wax affaire annonce yi. ñu ko fi doon wax livre Abdou Latif Coulibaly boobu mu bind uh-huh. bon affaire mallette yi ñu doon joxe pale ak yooyu yëpp bon ay audit yi ñu fi defoon génne ay ministères yoo xamante dañ audité gis ni am na ay kuddu yu ñu jënde quarante mille ak ay fourchette yu ñu jënde xaw ma ñaata mais loolu lépp boo ko déggee sénégalais yi di ko dégg nga ñëw nekk régime bu bees bu bëgg a départ ci départ bu bees mais il faut nga def état des lieux sentiment sénégalais yi dañu naral dañu mel ni dañuy wax ne audit yi ak gars yi ni ñuy tëll tëllee ni précipitation dañuy ragal du mujj fen ah il faut mu mujj fenn ah il faut mu mujj fenn su mujjul fenn moom moom moom loolu moom <laughs> c'est pas possible il faut bu ñu defee audit yi ba pare mais c'est la justice qui doit faire son travail maintenant képp koo xamante ni war na laa teg loxo parce que da ngaa jalgati mais dañ lay teg loxo parce que da ngaa jalgati loolu mooy engagement bi nga xamante ni bii mais jël nañ ko vis-à-vis des populations suñ ko deful mooy respecté wuñ suñu engagement. bu boobaa moi je me désolidarise waaw mm-hmm. ah, booba du ma ci ànd bépp engagement bu ñu jëloon ak population yi dañ ko war a respecté bu fekkente ne respecté wuñu ko ñu en tout cas ñun MRDS bokkatuñ ca loolu. gëm nga ne Macky Sall dina appliquer assises yi. ah oui il est obligé parce que jël na engagement bi. lu tax lu tax jëlul jëlu génnewul les ins euh, les ay IGE ñiy contrôler yooyu génnewu ko présidence parce que loolu bokk na ci assises nationales yi. xam nga fi mu nekk nii duggaguñ ci appliquer assises yi duggaguñ ci loolu. assises yi duggaguñ ci appliqué ko li ñuy def nii yëpp mu nekk ci biir conclusion yi itam mooy nekkagul loo xamante ni bii dañ koy appliqué officiellement mhm. mu nekk départ pour l' application des assises nationales départ bi man jàpp naa ne ma ñuy commencé ci jour bu ñuy adopté le projet de constitution issu des assises nationales waaw ak projet de réforme yi ak yooyu yëpp bis bu ñu paree ci élection législative yi li ñuy entamé mooy lapplication de des conclusions des concernant les réformes institutionnelles euh, économiques ñu ngi ci ñu ngi ci def audit après il faut continuer pour assainir complètement les finances publiques après maintenant yeneen domaine enrichissement waaw <laughs> euh, kii na euh, samp nan ko kooku itam normalement dafa war a def liggéeyam uh-huh. dafa war a def liggéeyam képp koo xamante ne soupçonné nan mais est gis Pape Alé dawal oto xam nga fu amee rek Ah, ñu woo ko soupçonné. xam nga loolu non Pape dara ci public bi ko kenn du ko dara Pape Alé bu fekkee ne doon la woon wala mu amoon affaire boppam. Mhm. ñu gis ko muy dawal benn oto buy jar cinquante millions wala cent millions. Mhm. mais kooku yoon kenn nekku ci mais bu fekkee ne Pape avant dix ans amuloon dara. ñu nommé ko ministre wala nommé ko directeur général. Mhm. cinq ans après six ans après dix ans après mu am ay milliards. loolu wax dëgg yàlla. kooku il faut ñu seet Pape Alé fan la jëlee xaalis bi. Imaam <laughs> xam naa dinañ ko ne ci biir waxtaan xam nga nu may def. Hmm. dama lay bàyyi caméra bi nga xool ko def sa temps d'antenne. waaw wax sa wax ak sénégalais yi ñu tëj émission bi. voilà <laughs> li may wax ak sénégalais yi mooy su fekkente ni wóolu nañ ñu ñun waa MRDS ba jox ñu doole ñu dem assemblée nationale dina am ay questions yoo xamante ni bii dinañ ko jël en charge bi ci jiitu mooy affaire lu affaire lu yaas xam na ni lu metti ci sénégalais yi la ci assemblée nationale bi weesu am na lu ci liggéey defoon nañ benn commission d'enquête boo xamante ne bii liggéey na ci liggéey bu am solo ma ngi fi ñun bu ñëwee liggéey boobu dinañ ko sulliwaat continuer ko ba jël ay mesures yoo xamante ne bi dina tax ñu réglementer loyer ci anam boo xamante ne bii dina dina alléger te ñi moom kër yi du ñu sonn donc wàññi loyer loolu bëgg nañ ko def bëgg nañ aussi affaire Casamance parce que dañoo seetlu ni parlement yi mosuñ ci bokk te parlement yi ñoom ñoo représenté peuple yi donc bu ñu ñëwee assemblée nationale dinañ créer benn groupe boo xamante ni bii dañ ciy def waa Casamance ñu nekk ay Joola def ci ay séréer def ci ay alpulaar def ci ay soninke c'est-à-dire ni ni ni société sénégalaise composé woo ñu def groupe bu mel noonu nga xam ni dañuy kalante ci seen biir groupe boobu ñu fexe ba ñu lëkkaloo ak benn groupe gambien boo xamante même chose lay doon buñ ko mënee am ci euh, Guinée Bissau ñu def ko su ko defee ñooñu ñëpp nag ñu toog waxtaan boole ci kilifa diine catholique yi kilifa diine jullit yi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bois sacré yi ñun ñëpp ñu toog waxtaan ah won gouvernement bi yoon wi nga xamante ne bu fa jaaree moom ak ñi ñi ñiy xeex su ko defee jàmm am ci Sénégal loolu bëgg nañ ko def bëgg nañ aussi ñu toppatoo affaire njàng mi surtout njàng mi nga xamante ni moo jëm ci alxuraan xam nga boo boo boo doxantoo tuuti rek biir Sandaga wala biir dakaar da nga gis ay xale yoo xam ne ñeenti at lan am wala juróomi at ñu nekk mbedd mi di yelwaan loo teel a teel a yow di nga gis xale boo xamante ne bii ma ngi ma ko gisee sama yaram dafay daw parce que moment boobu ma koy gis maa ngi bàyyi sama doom bu am même âge que lui mu nekk ci ci kër gi di noppalu mais loolu il faut mu jeex Sénégal loolu dafa ñaaw warul du am donc ñun dinañ jëy problème boobu en charge pour que loolu bañati fee bañati fee am am na leneen problème boo xamante ne bi gis nañ ko ci suñu relation ak monde arabe suñu relation ak monde arab mën na mën na mën na gën a yokku mu jariñ leen jariñ ñu yi ñu ci gis mooy ambassade yi nga xamante ne bii dañ leen di nommé ambassadeurs yi ñuy ak personnel diplomatique bi nekk ci réew arab yooyu lu ci ëpp dañuy nekk nit ñoo xamante ne bii xamuñu culture arab ñu ci bari dégguñu arab duñ dégg sax anglais ba nga xamante ne bii souvent mooy nekk langue officielle wala langue première langue réew ma loolu moo tax ñu bëgg ñu ubbiwaat ENA bu njëkk ENAM la tuddoon ENA ñu ubbiwaat fa filière diplomatique boo xam ni dañ fay former le arabisans loolu amoon na fi Senghor moo ko fi defoon dañ fay former les arabisans pour que bu ñu génnee ñu mën a nekk ci ambassades yi nga xamante ni bii mooy ambassade réewu arabe yi pour mën a représenter le Sénégal globalement yooyu daal ay mesures la yoo xamante ni bii bu ñu ñëwoon assemblée nationale bëgg nañ ko fa taxawal. shukran. <laughs> barakallahu fiik shukran shukran <laughs> imam euh, damay sant di gërëm mbokku téléspectateurs yi. Euh, di leen dig daje ci beneen émission incha